wansur alayna xadaina rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa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 te jéggal ñu sunuy rëcc rëcc ñoo ngi nuyu soppe al misbaax yi ñoo ngi beral nuyoo jàngkati alxuraan yi ñoo ngi nuyu it jàngalekati alxuraan yi ñoo ngi nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di bëgg lool ci ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi di amaan mbégte ci dellu siwaat ci suñ tomb biñ doon waxtaane démb te dooroon ko te mooy doon rafet doon waxtaane rafet njort waxoon naa la ne dafa am jikko joo xam ne mooy safaanu jikko ji mooy ñaaw njort waaye jikko yu baax lañ doon waxtaane doore woon ko ci wax la ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne dañ maa yónni ngir ma mot li jikko yu baax yi jikko nag mooy melokaanu nit dañoo wax ne mooy takkaay yi nga xam ne jikko yu rafet mooy takkaay li gën a am solo nit mën naa euh, solu sol yére ya gën a seer seer mooy gën a kawe ak njëg ci li ñuy tuddee ak njëg ci àdduna wala mu gën a xew wala mu am melokaan ko yàlla binde woo xamante ne mën naa sedd xolam dëppoo ak ni bëti nit ñi bëgg nit ki mel noonu waaye nag am loo xamante ne bu melut ne ñaar yooyu bu baaxut mën naa mëdd ñaar yee ba nga xamante ne seenu seenu baax ak seenu rafet dootu amati njariñ loolu mooy jikko nit ñàkk na alal lool am jikko yu rafet jikko yu rafet yi man may ko mu mën a jëflanteeku nit may ko ñu man koo wekk may ko mu nekk nit kuñ fonk doon koo xam ne kuñ teg ca kaw la yëkkati ko lool waaye li ko yëkkati du dara liko ko tungoom lu dul jikkoom rafet yi doomu aadama it mën naa doon koo xam ne jeexalut jeexalut dara ci waxin mooy koo xamante ni ñàkkut <coughs> bari na yu ñuy tudde teraangay àdduna mu am ko waaye ay jikkoom ñaaw lool loolu yóbbe ko nag mu doon ku ñu xeeb waaye yóbbe ko mu doon koo xam ne ku xeeblu lay doon parce que ñaar yooyu itam faw mu mat a xàmmee nit ki mën nañ koo xeeb aw nit jéem koo xeeb waaye fekk moom xeebu wut maanaam dañ koy cof waaye woyofut woyofut dañ koy dañ ko xeep waaye xeebu wut ndax doomu aadama yeeg seenu nattin mën nañu yëkkati koo xam ne kawewut woon jërul woon a yëkkati waaye mën nañoo suufeel koo xam ne kookaa jara yëkkati kookaa jara kaweel ba ca kaw a kaw mi ngi aju rek ni nit ki eh, defare boppam ak nit ki góorgóorloo ci boppam ndax kenn ku ne ci ñun bi muy juddu lii tax mu war a mën a doon li muy doon lépp borom bi dajale na ko ci moom borom bi dajale na ko ci moom maanaam bàyyiwut lu mu war a mën a doon ëllëg lu dul ne def na ko ci moom léegi nag doomu aadama bi barab bi nga xam ne fi la juddoo muy environnement bi ak ñaar ñi nga xam ne ñoo ko jur ñuy ay way juram ñooñu nag dañoo am nag lu ñuy def ci moom dañoo am lu ñuy lu ñuy def ci moom loo xam ne mooy màggal ci moom li nga xam ne bu màggee dund ci moom mu doon koo xamante ne ku yëkkatiku lay doon kuñ fonk lay doon wala ñu sàggane ko yooyu doon yoo xamante ne nii yu dee ci moom la yeneen juddu mu doon koo xam ne bu màggee dundam gi eh, solo si du bari ndax jikkoom yi moo baaxut loolu mooy jikko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha borom bi subhanahu wa taala nee na jàppandilal naa nit mu doon koo xam ne ku mën a baax la waaye mën naa sàgga nit koo xam ne safaanum mbaax da koy dal laxad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnaahu asfala saafilin doomu aadama jàppandilal nañ ko mu doon koo xam ne niñ ko bindee mën naa yëkkati ko ba ca kaw a kaw waaye mën naa wàccandiku nag wàccandiku ba gën a suufe ñëpp nga xamante ne daanaka day dund ci àdduna waaye alkuna na te jikkoom yu baaxut yi ñoo ko alak jikko yu baax am na solo lool mag ñi buñ daan yar li tax ñi daan ne ay jikko mooy ki nga yar ba defar ci moom ay jikko boo ko bàyyee mu dem ba nekkatul ci sa suufi bët ngari ko gis fu mu mën a nekk am na luñ mooñ ci moom loo xam ne loolaa koy dimbali ci yim war a moytu yiñ mooñ ci moom yoo xam ne moo koy dimbali ci yim war a moytu yépp nga xam ne day man di góorgóorlu di ko moytu boo génnee réew mi dem ci yeneen réew yi léeg-léeg gis koo xamante ne nii ni muy góorgóorloo ci mbaax boo ñëwee ci réew mel ne réewum Amérique mi gis ko sori na ay waajuram sori na ay mbokkam mën naa am sax fi muy dund moom moo fa ne ci ndum aku jàmbur ñoo xam ne kenn xamu ko fii moom bu defoon yaramu neen sax amul ñuy toog di ko waxtaanee waaye li ko tee def mooy bàyyiwut def lu bon moom ndax nit ña ko doon gis ca Sénégal waaye daa bàyyi def lu bon ndax da koo mënut maanaam def lu bon daa yëg ne baaxut te dañ ko ko yorewut nga xam ne mooñ nañ ko ba nga xam ne yi gën a tuuti tuuti waan nga xamante ne waxuma ne def ko daa tax bon waaye daan nañ ko moytandikuloo ay ndaw ñu bari ci réew mi maanaam tey bu ñëwoon fekk rek foo xam ne dañuy tux rek te moom loolu baaxoo ko woon a def yarewuñ ko ko woon da ko doon moytandiku sori ay mbokkam du tax mu def ko ak yu baree baree bari loolu mooy jikko jikko ju baax la mel moo tax dañuy faral di wax ne jikko jikko day mel ne jikko ju baax appareil boo xam ne dañ koy monteel nit ki biñ ko ko montee jikko yu baax yooyu li mu àndal yëpp day ànd ak moom mooy am looy jomb am looy jomb jikko ju am solo la parce que li ngay jomb ak li ngay ragal bokkut waaw dafa am loo xamante ne li tax nga def ko li tax nga bàyyi ko da ngaa ragal dem police kaso nga ragal am loo xam ne da ragal ñu yedd la waaye li ngay jomb moom sa jëmmi bopp ji ci boppam ak sa conscience ci boppam mooy xuloog yow ba nanguwul nga def ko nga xam ne fasoo ko yéenee def ci àdduna kon kooku dafa nekk koo xamante ne ni dafa am loo xamante ne ni da koy jomb jomm na maa def nangam bu njëkk dañ ko doon wax bu njëkk dañ ko doon wax moom la yonent yàlla Yuusuf waxoon keroog ba ko jabari eh, njaati géem la di sàkko mu ne ko jomm na maa def loolu ndax sa borom kër daf maa lebal daf maa lebal njëkk su ma ko fàttalikoo rek ma ne bari na koo xam ne am na lu muy wax ci nit waroon na koo jomb ndax danaan kooku lebal na ma njëkk donte benn fan jëflante na koog man ñun suñu réew. boo xoolee ci internet beeg réseaux sociaux yi ñi ëpp ci ñuy xuloo ñaar ñu àndoon démb lañ ñu seqoon ay teraanga démb lañ waaye kenn ku nekk mën naa fàtte la doxoon digganteem moom moroomam ba nga xam ne day mel ne du woon ñoom tey wala tansawul fadla baynakum la alxuraan waxoon ca ba muy wax ci néegu sëy ak bu cay jafe-jafe amee yàlla ne bu leen fàtte nag bu leen gaaw a fàtte bu leen gaaw a fàtte njekk yi doxoon seen diggante ndax kenn ku nekk xëy na mas naa yendu ci naaj wi te moroomam tax bu jafe-jafe am rek nga bëgg koo fàtte nga bëgg koo fàtte mbokk yi njort rafet ci jikko yu baax la bokk njort lu rafet ci liy tax a ci àdduna la bokk waaye njortulu rafet ci liy taxa a mën a jaamu yàlla la bokk njort lu rafet ci liy mën a rafetoo ak nit ñi la bokk moo tax alquran waxoon ne ijtanibu kathiran min adhanni inna baada adhanni ithmun yàlla nee na moytandiku leen lu bari ci njortu yi ndax bari na ci njortu yi yoo xam ne ay bàkkaar rek la yal nañu yàlla musal ci bàkkaar waaye musal ci njort loo xam ne dañuy jural bàkkaar te mooy li ngay njortu ci nit te demoo ba ca moom te demoo ba ca moom léeg ñu daje ci yu baree bari yoo xamante ni nit ki mën na ci mën na ciy waxtaan mën na ci waxtaan nit daal del njort ci moom lu baax tey bañ a xool lu bon te di ko bañ a jeex waaw am na ñoo xamante ne li tax nga xeeb leen mooy da nga leen a jeex rek da nga leen a jeex maanaam luññutu luññutu di luññutu di luññutu di luññutu ba mujju nga naan xaw ma woon ne diw nii la mel waaye li la xamal ne yow noonu la mel daa am loo xool waaye moom jéem na laa woon ak mat ba tàyyi jéem na laa woon ak mat ba waaye mat a jafe mat a jafe dañuy wax sax ne mat yàlla dong moo ko def alkamalu lillahi waada waaye nag moom ay sikkam ay mbon mbonam nga xamante ni nit mënu koo ñàkk nit mënu koo ñàkk nit mënta ñàkk sikk nit mënta ñàkk sikk waaye wolof da daan wax naan diw de man xawma sikkam ngir bañ a wax ne amul sikk mu ne man de xawma sikkam xam nga kooku maandu na waaye itam bul wëri sikkam nag njort lu baaxul mooy tax nag xawma sikkam waaye nag yow ya wari sikkam nag yaa dem di ko jeex nag yaa dem di ko jeex ba àgg ci wet gu tàng gi mu lakk la am na koo xam ne sax li tax mu dal ci sa kaw yàgg na laa muñal yàgg naa jëlale waaye yaa ko tànc yaa ko tànc damay faral di wax ne doomu aadama moom léeg-léeg la daa naqaree jëflanteel daa am bunt boo jaare rek ndax nit ku ne daa mel ne dëkk léeg ab dëkk du benn yoon dong nga ci jëm waaye am na yoon woo xam ne koo fa jaar rek àgg ca moom ca na nga bëgg fekk fa ak nooy aku neex a jëflanteel waaye am na doxalin woo xam ne koo ko doxaleel nag ak lum nooy nooy mu bittër ñu ko nag mu bittër ñu ko waaye ñun ñun Sénégal nit ñu dëggu ñi lañ ñaan nit ñu nit ñu bon ñi man loolu itam ci feebar yi la bokk nag ndax kenn ma sa gis loolu nit ku nit koo xam ne moom day jéem a dëggu wax la dëgg nga ne daa bon bi nga ko diisee sa soxla waxtu yàlla da koo mënut da koo mënta faj mu bañ a tas sa yaakaar bañ laa sonal ne laa loolu de moom wax dëgg yàlla mënuma ko nga génne kii daa bon kii daa baaxut waaw daf maa gàntu nit ku nangam la ñun daal ki baax mooy ki nga xam ne moom dalay dalay dalay wax lu dëgg hmm? nga wax ko ko mun la waaw bu subaa nga jaar fi te fasu ko yéene fasu ko yéene xalaatu ko di daw loo nit ñi rek di songale day reetaan te kontaanut day jooy te day wax lum gëmut ñu tudde ko nag ku diplomate ki wala ki nga xamante ne nu mu tuddati ne te loolu ci jikkoy naa feq la bokk ki nga xam ne dafa góorlu moom tegu ci njub góorgóorlu di jikkoo jikko yi rawatina jikko yi dëggu nga xamante ne jikko ju jafe la ñi nga xamante ne ñoo ko am te di ko dund booy jëflanteek ñoom ci ñi nga xam mën nga leen a wàññi say baaraam mën nga leen a wàññi say baaraam nit ñaa ngi gaañ nit ñi te yëguñ ko nit ñaa ngi gaañ nit ñi ñu ngi gaañante ci seen biir <laughs> waaw waxe ko noonu nit ñaa ngi gaañante ci seen biir te yëguñ ko waaw ndax Eh, ñàkk a ñàkk dëggu waaye ñàkk a ñàkk rafet njort rafet njort dafa noppale yàlla xam na ko li tax ñu di ko ñëwee nii euh, bari na problème yoo xamante ne problème mu ñaaw njort rek moo ko yóbbee nit léeg-léeg man may waxtaana ak koo xam ne feebaru waaye daa yaakaar ne daa feebar ndax daa ñaaw njort ci boppam daa ñaaw ci boppam dara dalu ko dara dara dalu ko waaye moom jàpp na ne moo gën a feebar ñëpp jàpp na ne eh, dañ maa liggéey ndax ñaaw njort ñaaw njort ko yóbbe loolu muy fërërërër nga xamante ne léeg sax ñi nga xamante ne dañ lay dañ lay noggutu di dund ci yow ci sa ñaaw njort googu la ñuy profité lu ñu wax ci lu ñaaw rek nga ne xamoon naa ko eh laa xalaatoon de naa ko de ndax yow yu ñaaw ngay xalaat moo tax yu ñaaw rek ngay xalaat laay ah, man kay loolu xalaatoon naa ko man kay loolu njortoon naa ko man la del njort lu baax nag boo njortoon safaan ba yi yëpp du la dal di waaw bu doon ne safaan ba rek Euh, maanaam lu rafet rek nga njort yàlla xam na ne da ngay noppalu ndax kon boo siburoo da nga naan xam naa jamono ji mooy jamonoy siburu waaye boo ñaawee njort da nga naan war na maa jóg ci sama bopp nga ñëw ci ni mu la ah, bañ la jóg ci sa bopp jamono ji ku jógut ci boppam rek nga topp ko topp ko ba àll ko ñaaw njort mm, baaxut waaw mi ngi mel ne sax moom laay waxtaane te rafet njort laay waxtaane te mooy safaan bi waaw ki rafet njort nag borom bi subxanahu wa laa da koy dimbali xanaa xamoo ne yàlla bindul nit ñi rekk bàyyi leen ak aw nit ñu leen di foye waaye nag ki bëgg yàlla dox sa digganteek euh, ku la nar a foye mooy bi nga bàyyee yàlla sa bopp waaw boo bàyyee yàlla sa bopp mu dox sa digganteeg lépp lu dul moom mu dox sa digganteeg lépp lu dul moom ba dara dutu doonati loo xam ne lu lay fëkk la wala loo xamante ne lu lay sàggan loola euh, njortu boo ko xoolee ba xoolaat ko ci alxuraan da ngay gis ne njort lu rafet la alxuraan am ndax day mel ne ñaare moom fu mu tudde njort euh, wala boog maanaam njortu alxuraan yaqin la ci am moom yaqin la koy waxee ndax fu mu tuddee njort li ci ëpp yaqin la bëgg a wax njortu mooy lu la wóorut yaqin mooy lu la wóor yaqin mooy lu la wóor nga xam ne li nga demoon ba xam ne dalaa wóor ne dafa xew nga jël ko yow rafetal ko mu rafet ci yow nga jël ko rafetal ko mu rafet ci yow wax ju ñaaw lañ la nettali joo xam ne di woo ko wax nga xam ne lii moom amoo ci njort dalaa wóor nga ah moom de xam naa tolluwaayam rek lay waxe waaw daa xamut waaye bu ma xamoon du waxee nii am na ñu baax am na ñu baax wala sax bu loolu yëpp amut it nga bañ a wàcc ba tolloog moom rek ndax loolooy ak ñàkk fayda ci yow bëgg a wàcc ba tolloog moom nag ne la ngay defante da ngay defante xanaa xamu ne am na koo xamante ne wërta tontonte am na koo xam ne kum xulóor rek moo la tooñ ndax moom xuloo moo ko war ndax léeg am na koo xamante ne nii problème bi ngeen am yaa ngi moom du yow du yow defoo ko dara waaye ni la yàlla def moo ko neexut kooku amul problème ak yow di sa borom subxanahu wa taala amal problème koo xamante ne ni la yàlla def moo ko neexut yow nga bëgg a wàcc nag ba tolloog moom di defanteeg moom wala nga naan dama koy romb duma ko nuyu du ko nuyu léeg-léeg nga gis koo xamante ne euh, moom maanaam ay employé am la tongool employé am la romb koo xam ne rek moom daanaka sëñ bi euh, gannaaw ba yàlla wéyee mi ngi noonu waaye nga mën a wàcc ba détail yu suufee ñu mën laa fekk nga nekk ci ak ñoom mën ngeen a àgg sax ba ci poñente man a jëru ko ku la fekk yedd la ku la fekk yedd la santal yàlla nag te yëkkatiku nag waaw tarafeen njortu ci sa bopp ba noppi oyofal yëf oyofal yëf yi ndax am na koo xam ne li ko yàlla defal lépp bu tëddee wut ndax di xalaat lu ko nit wax wala lu ko nit def yàlla mere ko ndax da ko naan xoolal fi ma jaar ak yow ak ak fi ma la teg nga fàtte loolu yëpp ba yenn détails yu ndaw a ndaw nar laa tardel rafetoo njortu ci sa bopp rafetoo njortu ci sa bopp ku rafet njortu ci boppam dëgg-dëgg du doxa du doxale noonu du doxale noonu moo tax ma ne alxuraan bari na fu muy tudde njortu yàqiin la cay jublu yaqin la cay la cay jublu yaqin ak njortu euh, léeg-léeg ñu tudd ko nga déggee ci itam siki sàkka nga xam ne waa ji njortul dara lu bon njortul lu baax waaye daana ci diggante bi daana ci diggante bi léeg-léeg mu sonal ñu ñun ndax nit ñi itam dañoo da nga dul xam noo leen di tuddee am na ku lay wax ak cofeel di sab xarit waaye léeg sax mu doxale noo xam ne tey doo xam ba xam kii daal wax dëgg yàlla soppe la walam mu noonu yaakaar naa yéen a koy gis doo xam ba xam kii moom ab soppe la doo xam kii ab noon la maanaam tey daal dafa laa jaaxal lool ci doxalinam lim la wax tey wala sa problème tey bi ni mu ci réagir wala comportement tayam bi bu subaa nag muy dagg di wadd ndax yow waaw won la cofeel goo xam ne jéggi na dayoo nga xam ne doomu aadama bi day mu jàgg ci sikki sàkk lay nekk te sikki sàkk baaxul waaw léeg nit di sikki sàkk ci digganteem ak boppam nga xam ne sa bopp ci boppam nga noppeegut mën goo noppi ci penc mi nag nit moom bu fekkente ne yow jubóogoo ak sa bopp li nga bëgg sax xamagoo ko li nga bëgg xamoo ko te léeg-léeg ñun ci suñu yar ak niñ lay teel a bàyyeeg àdduna li nga bëgg sax doo ko xam ndax bi nga ko xamee buñ la ci jàppale wut wala bi nga ko bëggee ba noppi mu mel ne bëgguwut day mujj yàgg doo xam fi ngay taxaw doo xam fi ngay taxaw moo tax léeg-léeg loolu day indi nit ki ci li nga xam ne mooy sikki sàkka sikki sàkka baat yooyu nga xam ne mooy baatu Euh, am am lu la wóor ci mbir ñu di ko wax yaqin ak baat bi nga xam ne mooy njort te mooy foog naa nangam waaye dara wóoru la ci waaye jàpp nga dara moom ni lii la waaye amoo ci yaqin ak baat bi nga xam ne da ngay sikki sàkka ndax nii la demeem demewut nii yooyu yëpp ay jikko la yoo xamante ne day day nekk ci biir nit ki waaye nag zann lay doon te loolu daa bokk ci li nga xamante ne rafetal ko rek mooy li nga xam ne mooy noppal nit moo tax foo fekk njort ci alxuraan mu di ko wax njort loo xamante ne lu baax la lu baax la day nekk loo xamante ne yaqin rek lay tekki yaqin lay tekki bu dee loo xamante ne lu bon la dawal sori ko te xam ne siki sàkk la yóbbi nit te loolu baaxut te loolu baaxut moo tax ñiy jàngale sew-sew bi ci alxuraan dañuy wax ne anna kulla dhanna yatasilu bihi an muxaffafatu fa huwa fa huwa shakkun waaw maanaam bépp njort boo xamante ne dafa jokkaloo ak euh, baat ba ca topp day baat boo xam ne dañ koo oyofal nañ ko bindee saddawuñ ko nee na loolu sikki sàkka lay tekki waaye boo xamante ne nag dañ koo dëgëral nee na boobu yaqiin lay tekki alxuraan misaal ne bal zanantum allan yanqaliba rasula waaw loolu eh, day tekki day tekki sikki sàkka nga xam ne ña njortu aka aka aka demee yaakaar ci ndax danañ mën a not yonent bi wala déet njortu li nga xam ne yaqiin lay tekki nag wa inni zanantu eh, wala boog inni zanantu anni mulaqin xisaabiya waaw nga xam ne loolu eh, la muy tekki foofa kon mooy dëgëral ga te mooy yaqin ak ya nga xam ne moo ci aju njortu ci alquran ak ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg ñu ko def ko mu nekk eh, juróomi xaaj juróomi xaaj nga xam ne du génn juróom yi ba ci njëkk ca juróom ya mooy njortuloo araam njortuloo araam loolu baaxut njort li nga xamante njort lu bon la bëgguñu nit ki njort ko ñu ne loolu mooy njort lu baaxut la jiitu ci njort lu baaxut mooy ñaaw njortu ci sa borom ñaaw njort ci yàlla ci boppam nga xam ne am na ñoo xam ne dañoo rafetul njort ci yàlla jàpp nañ ni borom bi subxanahu wa taala moom safaan ba rek la leen di def toskare rek moo nar a dal seen kaw yàlla du ñëw ñaaw njort ci moom waaw ñaaw njort ci moom ki rafet njort ci yàlla moom xelam day dal saa su nekk mu di ko xaar. te nag moom subhaanahu wa taala ku yuy jaam bi la bu baa bu waree ñaan day ñaan bu waree day liggéey day liggéey ndax du jàpp ne ci ñàkk gi laay dee du jàpp ne ci wéradi gi laay dee du jàpp ne ni ma mel nii rek ni laay mel day gëm ne borom bi subhaanahu wa taala kat li ñu wax ci moom ci mbaax lu ko rawan ca moom mu rafet njort ci boromam bu ñaareel bi mooy e, leneen njort loo xam ne lu baaxut la mooy ñaaw njort ci jullit ñi ñaaw njort ci nit ñi loolu day feeñal ak ñàkk maandu day feeñal ak noonoo day feeñal ak noonoo ñetteel bi nag te mooy maanaam njort loo xam ne lu dagan la mooy li nga xam ne dana dox ci diggante nit ki ak moroomam ci muy njort ci moom lu baax ci muy njort ci moom njort la nga xam ne moo gën a rafet di njortu ca moom la nga xam ne nga xam ne da koy dogal ngànt bu ko gisoon muy dox di dem du jàpp boo ñëwoon nit ñi di wax ba nga agsi nit ñi noppi doone ci man ngeen doon wax moo tax ngeen noppi waaye rafet njortu gi moo tax da ngay jàpp ne lañ doon wax dafa jeex wala ñii kat liñ doon wax xam naa dañoo bañ ma dégg ko mu di ma euh, mu di ma indil xol bu xol bu yëngutu ndax diw ma ñi wax dama koo bëgg bëgg ba bëgguñu ma dégg ko nga xam ne yaa ngi koy rafetal lu jafe la nag waaye yaa ngi koy rafetal te kéemtalaayal waaw yaa koy xam réew mi da ngay dégg kompaloo la lii diil la lii nangam la xam naa ki koy wax bu ci amee yàqin moom diil am na kompaloo am na diil moom am na ci àdduna kompaloo it bari na lool waaye bu tegoo ci njortu moom bakkaar lay jural ki nga xam ne moo koy wax yal nañu yàlla musal ci bàkkaar te musal leen ci yal nañu yàlla sàmm te sàmm leen boole ñu aar defal ñu jàmme àdduna jàmme àlaaxira dimbali ñu bañ am jikko yu baax yi ndax mooy tax kat suñu ànd mën a rafet ci suñ biir mooy tax itam suñu ànd mën a rafet ci karam suñu borom subhanahu wa taala bam boole ñu ci ñi nga xam ne yëkkati na leen teg leen ci kaw jikko yu rafet takkaay la ni ma ko waxee woon bi may tàmbali waajtaay la woo xam ne ki ko waaje mën naa wàlli fu ne te kenn du ko xeeb jikko yu baaxul nag ak rafle la ak wuññeeku la goo xam ne ki ko amee leneen lu mu waaje lu dul loolu